si li jaxate xam ngeen ni dimanche le 4 mars faut organiser waat ndaje bu am solo invité ci Sénégal yépp mais invité ci Thiès te ci biir Thiès waaye yooyu mu invité yéen a ngi seetaan publicité bi xaritam doomu ndeyam Babacar Pascal John, président du mouvement Dolil Macky te ko cee cëral xam ngeen ni le 4 lamb jooju drapeau le ministre Cher Kanté, le ministre chargé du PSE. di sama xarit di sama wóolare di nit ku ràññeeku ku def lu am solo ci Sénégal defe bi mu yoree port ñépp gis nañ fa mu port ak fa ko yóbbu ku am ndam ci liggéey bi ko jox natt ko yomb na rek ndax yokku na wala

tënk ko ci plan boo xam ni adduna bi yëpp mu ngi koy roy fi mu ne mu yëkkati lu toll noonu dénk ko Cheikh Kanté kon Cheikh ñu ngi lay ñaanal yéen bi yàlla woyof sa bopp yàlla na nga atteindre objectif yi nga visé te président sas la ko ñun nag sunu xarit suñu sunu wëlëre nga bu ñu la tuddee drapeau même bu ñu ci invité wu sax dañuy dem astuma ak ñu invité kon yéen mouvement Dolli Macky bëgg naa ubbi subaa le 4 ñun ñëpp nag na ngeen sañse ni ngeen daan sañse parce que ndax daa ko leen a si di wax na ko léegi bu ko defee ñun ñëpp ñu ànd teertu suñu xarit Cheikh Kanté gunge ko ci lamb ji parce que honneur lañ ko ko defaat moom it mu waat lépp teg ci loxol président de la république teg ci loxol première dame Mariam Faye Sall sama xarit kon bis boobu bis bu am solo la si di nag. fexe ba équipe bu TFM ñëw fii fekk si ñu kenn ku ne xam na ne TFM ñaari fan yi ña fay liggéey yépp kenn du ci am jot parce que dégg ngeen seen directeur de programme lamb joo xam ne dañoo daal di signé contrat bi ci kanamu ñëpp et en deux jours ñu bëgg a def loo xam ni en deux mois trois mois lañ ko daan préparé te wóor na ma ni TFM dina ci am ndam. parce que c'est des professionnels ma ci profito di féliciter sama xarit koo ne dama ko sopp je ne Ndour di sama nawle ci ay âge je ñoom un moom ñoo a âge Mais ko magi mais comme sama donc ba ñu ba musique la ku ñu la un la exemple vous ko jël exemple un exemple de persévérance un exemple d'ambulance un exemple de volonté loolu ku koy wut ci

Medun ak Mao Cissé ñi ñëw fekk si ñu fii xam ngeen ni APR c'est le parti du président bëri na ay responsable yu mën a liggéey yu nangoo liggéey yu yaatal mbooloom président mais président Macky Sall dafa am leneen dafa am ñoo xam ne nekkuñ ci parti te sopp ko bëgg ko bëgg mu am ndam ñu yëkkati ay tànk seen i tànk ak seen i moyen te taxawal ay mouvement de soutien jël ci seen alal di def campagne pour yaatal mbooloo président Macky Sall loolu avantage bu président Macky Sall la te mouvement de soutien yooyu mouvement Dolil Macky bu Thiès dirigé par Babacar Pascal Dione ci la bokk may profité ci occasion aussi di nuyu sama yeneen xarit yi nga xam ni samay naataangoo lañ te def ni ma def bëgg a jàppale Macky Sall te dugguñ ci parti bi yëkkati ay mouvement taxawal ko di ci liggéey mon ami Babacar Fall. mon ami Mamadou Gning mon ami Ablaye Dieye ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen di leen wax ni ñun waa Thiès moo xam APR la moo xam mouvement de soutien la nañu góorgóorlu doon benn joxante loxo hmm. liggéeyal président Macky Sall ngir élection yii hmm. mu mën a jàll au premier tour loolu mooy suñu yéene mooy suñu bébé loolu laa leen di woo yéen responsable mouvement Dolli Macky jóg jot na nag les mouvements de soutien sont devenus une réalité incontournable c'est comme les motos Jakarta mouvement de soutien c'est des mouvements qui sont devenus incontournables c'est des éléments importants du système politique vous Sénégal il faut qu'on fasse avec heureusement que kilifa yi nga ñoom la les responsables de la paix nañu loolu ba bu au sommet dañ ñu ciy boole loolu la ñu exprimer encore une fois sunu disponibilité ak sunu engagement ak sunu volonté ànd ak ñoom ci ni ànd gën a rafete maanaam àndu ngir ñu pour a Sénégal kanam mais le président Macky

tubaarkàlla da nga yokk mbooloo. ba ma fekkee caajaay ci say biiri bopp ministre yëpp teew fa ba ma jógee di wax ci yow monsieur di monsieur Omar yi ci boppam moo ni ma waxal ca kaw seedeel loo wax ci moom dëgg la da ngaa loo xam ne ñëpp teg nañ ci seen bët nga liggéeyal ko liggéey bu am solo président wol la boppam Cees kii mu tële woon Cees kii mu méttee woon Cees kii ko jaaxaloon bi ko dolli lee xam na ne dolli ko bu baax a baax. keroog ba ñu dem Medina Fall yàlla Pascal. ndox jafe fa lool nee na ku fa mës a ñëw rek da nga leen di dem sa yoon ñibbi ci autorité politique yëpp keroog ba Pascal waxee ñoom dafa ñëw ñun ñii ñëw ànd jiite Pascal yëkkati un million teg ci kaw taabal ni leen ndox mi laa bëgg mu ñëw neuf cent et quelques mille moo ko doon defal ndox maa nga nee ci ba ñu tuddee Pascal ne ko doom ji fi ñu ko tudd Babacar Pascal ñoom lañ ko tuddee loolu ñoo fekkee. yoonu ndaw nag du gaaw. sa mouvement bi ci ndaw bi kooku loolu la. yàlla dafa dogal ci yoon wi. ah bu fekkee war nga am résultat bu baax. foog nga dajeeg li nga ay obstacle wolof nee safara du doy di wuus or bi ngay fekk ci benn vitrine ñu ne la chaîne bi deux millions laa ko jënde fa fa or ba jaar fa ñu ko extraire dóor ko lakk ko couleur ba def ko ci ci ci vitrine bi ñu ne la chaîne bi 2 millions lay parce que coono ba mu nekk donc à la kulli alin boo yëkkatee lu nar a am résultat fu mu am façon coono bu nekk looloo mu am gujj foog mu am coono foog mu am dëgg sërëx foog mu am façon bu nekk lépp lu a réussir lu nekk noonu la nguur ji demee noonu a réussir lu nekk di demee comme ni ko olof yi da waxee na ko def jooma sa gis na nga ko waxtaane mooy jiitu te ki bëgg ku ko wéttali ak ki bëgg fu mu fanaan tëjal bunt bi du leen tàggale mais dañuy wax nan la ñuy tëjee bunt bi soit que dañ koy caabi loobe wala dañ koy kànnaat wala dañ koy ngombe loolu mooy sol si waxtaan kon nag ci biir loolu euh, bu nga xamante ne euh, ci information yi nga joxe président le mouvement Dolli Macky war na dem Notto Diobass Notto Diobass sunu commune Kër Madar est dans la commune de Notto jobaas

par exemple Pascal moo war a réagir wala kat le président moom moo war a joxe une idée pour que mouvement bi war a mën a dox kenn ku nekk à notre niveau war nga mën a benn génne benn xalaat wala sa benn plan d' action gox boo xam ne ci code bi nga nekk daal di koy proposer le président xool ba xam boobu programme dinañ ko déroulé waa wala déet su ko déroulé wul nag su boobaa peut être dina di nga ko mën a jàmm mais jàpp naa ne man à mon à niveau ah euh, te ñeneen tamit jàpp naa ne ñu koy def man ba léegi depuis les élections législatives jusqu'à mon jugement de massification D'ailleurs, ailleurs am na yeneen leader yeneen responsable yoo xam ne recruté nañ leen boole leen président te incha a dinañ def déclaration euh, d'ici les jours à venir kon loolu très important parce que politique comme ni nga ko waxee massification que li ñu groupes dafa am solo élection présidentielle mais tamit fa bu ñu en 2019 ñaari élection moo ci am présidentielle et locale te fii mouvement bi am na ci ay conseils ñoo xamante ni takkoon nañ ndox ba tant que conseil soit que municipal ou départemental départemental en 2014 c'est bëgg nañ ko renouveler ñi ko takkul woon tamit ci pour dans le cadre du mouvement bëgg nañ tamit mouvement bi am ay élus. parce que loolu dafa bokk ci représentativité un parti politique wala lépp bépp kuréel bu yëngu ci wàllu politique bépp kuréel bu la ëpp ay élus daf lay gën a pesé wu ci luur ci balance président dafa ma sagal dafa sagal waa mouvement bi te sag googu nga ma sagal. maa ngi ñaan yàlla ak sëñ Fallou yàlla na la ko yàlla sagal yaa xam loo bëgg ak foo bëgg a yegg te bu fekkee ni surtout sëñ Fallou nee na ma man naa dogu ci sëñ Fallou lu ma dogu dina am dogu naa ci sëñ Fallou que ni fi bëgg ci mouvement bi yegg yàlla na nga ko yegg te ñun dogu naa ci sëñ Fallou Macky Sall jëlaat élection yi au premier tour. association bi ñu jëte homme politique boo gis ñoom ñu waaye ñu àndandoo. takku di liggéey ndax dama leen di booy ànd ak nit ñu wóolu la doy na boo leen di teg danga leen teg ci loxo yu wóor moo tax ñu tànn Babacar Pascal teg ko ci suñu loxo ñu di la tàllal suñu loxo nga tàllal ñu solo bi ñu àndal moom ñuy sant monsieur Diakhoum moom nga xam ne moo jiite ca dëkk ba nekk fa ba ñu ñëwee gis ko suñu soxla daf ñu ni ñëw leen ma wut leen koo xam ne ki dinaa leen boole ñëw moo ñu indi ci ndax Babacar Pascal mu dox ci lu rafet. ànd na ñun di ñu jàppale di def social nag ca koñ ba te kenn fekk ko ci monsieur Diack bi moom kon ko jàppale ñëw jàppale ko ñu kon social boobu dina gën a doon ndax ci loo rôlam la nekk bi jigéen ñi jag dajee ñu ànd ñu duñu avec mbootaay la ñu association boo xam ne bii boo poussé mu tàkk boo poussé mu leer na ñëpp ndax dañoo àndandoo te yàlla tax di yëkkateendoo di tegandoo di jël suñu bopp nag ñu seet ku ñu doy mu jox ñu ko ñu sa gannaaw ma bëgg nag Babacar nga jàppale ñu ci Medina Fall ndax nag kuy xeex du toog xeex toog baaxul ñàkk nañu ndox ñàkk nañu courant sunu kër ya lëndëm timis kenn du ñëwee génn te nag waa Medina Fall quartier ba ma dëkk ñépp bedd nañ ñaaña kan ànd ak man kon su ma sañoon nga ma man damaa am ma man duma béykat man rakkam laa léppam ma egg xam naa fi ma fi ma ko egg may sàkk ci moom man damay jàppale yéen di toog fi di may dégg ci nekk dañu ko nekk ñu ngi dimbalee seen askan ñun ñëpp wala ñu gën mënta bëri leen kii de nangu na ko ci waa ji wax léegi jàkka ak yeneen ak yeneen loolu defal ko ko waa Bamba boppam la ko defal donc ñëpp def na ko mu ko tam mu ko def feneen ak feneen ba jàpp nañu askan bi kenn moomu leen ñoom moom seen bopp yéen Pascal mën na leen a moom parce que yéen ko bëggal seen bopp mais ñu topp ci yéen mënuñoo Pascal mënu leen a moom il faut Pascal war leen lim leen wan yéen pour ñooñu mën koo bëgg. te loolu day jar day jar bu def tàkk ak tàkk li mu def ci yéen bu def ko ci ñoom mën a ànd ak ñoom mën a ànd ak ba jàpp ndimbal gi ngeen wut ci moom li jiite bëgg dem am na lu def ñun ñëpp kenn yow maanaam ustaas man la yoon nee ma deux cent mille wutal leen mutuelle santé bi Fatick muy cinquante sept imam yi nekk euh, ustaas nekk man damaa jàpp ku ci nekk ci yéen gox bi nga dëkk boo leen demee fukk xool ñaata téléphone ña fa néew doole génn ko ci banque indi ko bu dee deux cent mille mu dugg ko ci mutuelle mu dugg ci vingt maison nekk am na papa am na yaay papa ak yaay bu nekk am na fukki doom fukki doom yooyu boo o boolee nekk fukki ñaar o ko boolee si ñaar fukki maison day nekk deux cent vingt maison